pourquoi euh, l'affaire Bah Diakhaté euh, commençait à revêtir une dimension politique euh, ah, nationale Maïmouna, Bah Diakhaté n'est pas un prisonnier, c'est un otage politique de Ousmane Sonko. Dès le départ, bañ ko jàppee loolu laa jëkk a wax parce que xam naa tan jàpp. Bah c'est un otage de Ousmane Sonko. Son rapt a été organisé par le ministre de la Justice. en complicité avec le procureur et la DIC li mu am. procureur Macky Sall ba woon. non non procureur Macky yooyu waxu juunu yooyu waxu Sonko la du wax yooyu man. Ah. le procureur il est la République yooyu waxu naxa-naxa la man du ko wax mais nag si ma donne moi la liberté de critiquer la justice mais du leen saaga parce que kenn waru leen saaga. pour reprendre leur terme. donc kenn waru saaga magistrat mais on peut critiquer l'action de la justice. tout anticipe bu fekkee nag ba léegi ils agissent au nom du peuple sénégalais et j'en fais partie Bah Diakhaté c'est un démb laa am conviction que c'est un otage xamoon naa ko nag waaye démb am naa conviction parce que lu tax tout la journée du projet maa ngi woon ci salle bi toute la du début à la fin génnuma salle bi wala boobu ma génnee damaa doxantu rek mais dara rawuma ci ñaar yëpp lañ ko doon toppee offense au premier ministre ak diffusion de fausses nouvelles ci le code pénal sénégalais amul offense au premier ministre nekku ci mais li gën a garaaw procureur bi mu ñëwee di layal offense au premier ministre daf ne premier ministre yor na prérogative président de la République parce que yor na contre signature lu Sénégal yi nul nul lire constitution bu Sénégal xam ne la contre signature c'est une prérogative du premier ministre et non du président de la République Mm-hmm. article 43. kon procureur bi dafa mabbu daanu dem ba takk suuf rip. kon ginnaaw offense au premier ministre amu fa bi des mooy Ousmane Sonko kër bi muy dalal Jean-Luc Mélenchon bi muy wax bi ko be bi ko bi ko speaker maanaam ki doon présenté présenté comme premier ministre def na ko déedéet dama fi ñëw en tant que président de parti Pastef président de parti Pastef moo ko wax président parti Pastef la Bah Diakhaté tontu. diggante président parti Pastef ak Bah Diakhaté yoonu procureur da ci nekkut parce que procureur ba duggee ci diggante ñaari citoyen parce que kii xëy na daa yor parti daa yor dafa nekk premier ministre su boobaa il remet en cause fondamentalement un principe républicain l'égalité de Sénégalais devant la loi xaar màggale xaar màggale xaar màggale kon offense au premier ministre amut benn ki Bah Diakhaté doon tontu du premier ministre mais c'est le président de Pastef su Ousmane Sonko ba bañatee ñu tudd ko ci politique na bàyyi présidence Pastef bi def na Bassirou Diomaye Faye. mais euh, qu'est-ce que tu fais de l'alinéa 2 de quoi de l'article 254 du code pénal. xam nga man nag may mën hmm. euh, ma fonto loolu moom li <laughs> l'alinéa 2 bi li mu wax leer na c'est-à-dire toute personne exerçant. tout tout tout tout ou une partie. ou une partie des prérogatives. du, du président de la République. Ousmane Sonko guddi yu ñu toll amul benn prérogative président de la République bu muy bu muy bu muy exercer xamal tax pour mu mën a exercer ak prérogative bu ko président président de la koy defee décret bu muy signé la ñu ko au journal officiel yëpp xam ko te décret boobu amut. mais xam nga ba ñu waxee ne dañuy def décret pour renforcer les pouvoirs. Ah, dañuy def décret def décret du benn. jot na ci xaara jot na ci consulter sax le président. de l'Assemblée nationale xam nga luñ ko tontu. waaw ko c'est une redondance. Ouais. à l'article de la Constitution le président de la République. mën na déléguer euh, une partie de ses prérogatives. au premier ministre wala mais mën na ko déléguer une partie. de ses prérogatives. au premier non décret bi amagul gisaguñu ah, ko mais mën na déléguer une partie de ses prérogatives au premier ministre il n'a pas de d'établir un nouveau décret xam nga Bassirou Diomaye Faye loolu lañ ko tontu bu liirul man nag pour un inspecteur du travail des impôts pendant 17 ans jàppale war niveau war na ëpp loolu wala boo xëy na ñi mu nekk donc encore une fois le décret pas donc président la joxul benn prérogative boo xam ne moom moo ko moom ci constitution bi bu mu jox Ousmane Sonko kon Ousmane Sonko n'exerce aucune prérogative du président de la République or procureur lan la wax démb ne la la contre-signature tax na on peut considérer Ousmane Sonko comme quelqu'un qui exerce. la contre-signature c'est une prérogative primatoriale pour le premier ministre donc le procureur est passé à côté. kon affaire offense au chef de <laughs> au premier ministre moom tëb na màbb na démb. mais xaar màggal rek deuxième màbb bi muy diffusion de fausses nouvelles ñetti mbir la bu njëkk ba mooy Ousmane Sonko 2016 dafa def déclaration de patrimoine bind ni lii laa am bindu livre am patli ko ca delloosi ko ca. ni lii la am ne nag yéen waa APR ku ci gis leneen na ko wax ah Bah Diakhaté solu dàllam yëg ne Ousmane Sonko jaay na kër 2018 mu xool kër gi mu jaay ndax mi ngi woon ci déclaration de patrimoine bi gisu ko ca parce que déclaration Ousmane Sonko def ne benn benn kër la am muy kër gi nekk cité kër góor gi waaye kër gi mu xam ne de jaay na ko 2018 2008 la ko jënd. kon bi muy def mil 2016 naan benn kër laa am waxul dëgg benn Bah Diakhaté Bassirou Diomaye Faye mii président de la République jaay na ministre du budget bii kër ab terrain bi ci ci dëkk bi kër yi ne fànn bu dee tuuma ji ñu teg ci deru Kousandik Kébé ah waaye loolu kay c'est des documents de l'état-major kon encore une fois Bah Diakhaté démb wër woon a fanaan kaso c'est un otage de Ousmane Sonko délibéré pour le 3 juin la. dama ne wut délibéré wut dañ ko war a. activité signature tijjiwaat nañu. Euh, beneen dossier xaral science démb dañ ko war a bàyyi Bah Diakhaté c'est un otage de Ousmane Sonko il veut le casser mais il il pas que Bah Diakhaté est un roc c'est un militaire lui un digne militaire parce que nag tous les militaires ne sont mais lui en fait partie tooñ nañ ko ba tooñar bi ko liñ koy topp dara la ci deful. man nag je n'accuse pas la justice j'accuse particulièrement le ministre de la justice le procureur bi intenté bi def bi bi déclenché les poursuites ak les les les les les policiers de la DIC d'autant plus am yow yaa ngi koy dégg ñu naan le le VF de Bah Diakhaté a parlé. il n'a pas été convoqué. xaar maa gën la rek su fekkee policier DIC ñoo ko def liñ def c'est pas un travail de policier c'est un travail de parce que Bah Diakhaté n'est pas n'est pas poursuivi pour détournement de quoi que ce soit. mais benn bu ñu ko defee def nañu wuyu bu fekkente ne ñoo ko génne ci média yi aussi. c'est encore pire c'est une affaire de barbouze la. say may mun a man je sais ce que dire la police dans un pays et la gendarmerie c'est les murs qui portent la démocratie c'est les murs qui portent l'état de droit c'est les murs qui portent la république. on ne doit pas les utiliser parce que les utiliser c'est fragiliser l'édifice sur lequel dans lequel nous vivons muy la République du Sénégal je dénonce jusqu'à la dernière énergie ce procédé malsain naan jox nañ ko il a reçu de l'argent patati patata Bah Diakhaté du ku ñuy jënd mais Bah Diakhaté li mu daj ci xeexu xeexu Ousmane Sonko bi ay nit yu am teraanga yu dul jeex yu Macky Sall am kenn coom dalu ko defu ko ci kon bu koy def il le fait par principe mais deuxième procédure bi ñu bi ñu bi ñu tëjji nag. et puis daal loolu leneen li des mooy même cette fameuse vidéo dont tu parles ça date de 2022. et ça rentre dans le cadre de waxatuñ ko. xanaa ñu inventé beneen droit. waaye droit droit bii Sénégal am. kenn mënu cee ko mais mais deuxième procédure. xaaral ma nga ne boobu moom di boobu ci Babacar laa ko dégge Babacar Mboup déggoon naa ko ci fan yële. mu ne day porter plainte Babacar euh, kii Bah Diakhaté parce que daf ko daf ko daf ko daf ko daf ko daf ko diffamé je crois que diffamation la koy topp moom quoi. il paraît que loolu moo taxoon ñu wooyee ginnaaw nag xamaguma ci lu bari daa ciy maandu waaye man keroog ba ma demee ci guddi dig di seeti baax gis euh, <laughs> vidéo bi procureur yónnee dig pour ñu toppee ko baax. laa xam ni kii c'est un otage et maintenant j'espère que les les juges qui Alors. étaient là hier qui ont entendu Ba qui ont entendu les les plaidoiries les belles plaidoiries de ces excellentissimes avocats daañu bàyyi Bah Diakhaté mu ñibbi Alors parce que ci lii moom mënuñu ko ci tey maintenant nag vous savez que dans cette affaire là boo ci duggee bon parce que démb rek moom avocat yi bëggoon nañu ko ñaanal liberté provisoire procureur bañ c'est-à-dire même bu ko bu ñu ko acquitté interjeter appel s'opposer ay une à, la liberté provisoire mais loolu la muy tekk bu amee rek na Sénégal yi xam ne prise d'otage bi Ousmane Sonko moom moo nekk moo jël en otage Bah Diakhaté ah. waaye li ñu koy toppee amul lu ci taxaw mais